combat ay xale la xale yoo xamante ni làmb da leen bàyyi xel ñoom naa nag ñu war a jëflante ku ne gis nañu bu ñu jàkkaarloo ni muy neexee ni muy tàngee defe naa nag li ci des matul une semaine cinq jours xaw ma six jours moo ci des ma bàyyi Ardo ma nuyoo ñu doog a wéyal waxtaan wi Ardo nuyu naa la. waaw alhamdulilah maa ngi lay fay maa ngi lay fay bu baax Ouzin di bëggee ñëpp ñu ñuy seetaan di nuyu Sénégal monde entier ñëpp e, képp kuy suivre wasaare ñu ngi lay siyaar bu baax a baax di a baax a baax. fi ma njëkkee sax dama la woon baalu ak maa ngi nañ la baal ñu ñaan boole ñu baal. Mm-hmm. ñaanal Sénégal yëpp tabaski bii ñu ñu ngi jéggalu ñëpp di jéggal ñëpp. Mm-hmm. ñu teewee ko ay déwén yu ànd ak sax dàq neex taw jeex. saf sàpp yàlla ak yonente bi sëñ Touba ak magu lislaam yëpp maam Baye Niass ñëpp daal. canaba canaba laayeen yoof waaw ñëpp daal Kambureen. kulluhum daal kilifa diine yëpp ak kilifa aada yi mm. leen siyaar baax a baax a baax. Mm. ñu gis ne combat bi mu taxaw ak léegi daanaka yàgg na yàggul ndax ci biir koor gi la combat bi taxaw mm. mais boobaa ak léegi yéen ngi sa entraînement defe naa ne fi mu moo ci des naka nga doon préparé woo combat bi. waaw comme euh, comme comme d'habitude rek. Mm-hmm. di di nuyu sama coach yi si jàpp bañ yegg si fii di leen wax ni ñoom seen wàll wéy na man rek maa si des. Mm-hmm. yàlla suñu borom suturaal may ñu ndam. yàlla nañ bañ a rëccu lañ ñuy doon ànd ak ñoom ku si mel ni mu si waxee jàllo kër su Diallo euh, wax si Papi wax si Ndukumaan mm-hmm. wax si Kona bu baax a baax Kona jàpp na si box bi waaw di si wax Ndukumaan bu baax Jackson sax def na si participation Zane xam nga ñëpp daal waaw ku lim rek juum mais bëri na bëri nañu si jàpp si si préparation bi ku si mel ni papi tamit bu baax a baax a baax. ñaata séance nga doon def. waaw deux séances ah. deux séances la nga doon def salle boxe wala salle contact wala. salle boxe contact chaque jour ak lu mu laaj rek dañ naan ma tey fii la ma dem fii mhm. tey din la ma dem din tey salle la ma dem salle tey école la ma dem école. Mhm. Mhm. Euh, fi mu toll nii fi mu toll nii lan moo des. non dara desul. yàlla noppi kon hmm. dara desul daal heure rek a jot waaw heure bi rek a jot ñu ngi ñaan yàlla suturaal ñu may ñu ndam di si woo ñëpp ñu si doon jàpp ku si mel ni sama grand ngañ da sagana hmm. gis nañ bu baax ni mu def waaw ñu koy woowaat bu baax a baax a baax waaw ndax nee na day ñëwaat waaw ak ak euh, magam Codé ak Mansour rakam seen waa kër ñëpp di si woo tamit euh, Omzo bu Garga Mbossé sama papa Jibi Kayta sama papa sama lépp waaw di si woo waa Thiès Mbour Louga xam nga di si woo di si woo waa Faajul Faajaal di si woo waa Sokone bu baax a baax xiidu ak eh, Ibrahima ñu ngi si woo bu baax a baax gis nañ seen taxawaay foofu ak Seexu eh, xam nga ñëpp ñu ngi si woo ñëpp daal ku lim juum mais ñu ngi si woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp rek sama grand xaadim naar sama grand xaadim Amar. waaw waa koñ bi jeegu inte deux bi ñoom may njaay xam nga ñoo ngi natt faatu gu jaa bi non ñu ngi natt ñu ngi natt ñu ngi waajal ceeb bi ceeb si waaw ceeb bu xonk bi tàmm nañ ko si. mais sa diggante ak Sawa lan ci nar parce que gis nañu yow ak moom xas bi bari na te da ngeen ñemente sa diggante ak Sawa lan la parce que bi mu taxawee nee na doon na ñëw seen écrit di contact si mais xaw ma daaw la gis je sais pas daal lu mu demee noonu lan nga ci nar sa diggante ak Sawa. Sawa mooy loolu xam nga nit moom am na ñoo xam ne dañuy monter dañuy fexe ba miin la bëgg la yàpp waaw mais man xam naa sam bopp bu baax a baax lu ma yàpp yàpp yàpp am na loo may desal sam bopp loo xam ne moom mënu koo xam si man ndax nit ku nekk dama lay jox sa cër. Mhm. bi nga moom. ku looxum ku ma dajal si àdduna loolu lañ seex quoi dama lay jox li nga moom jox la jox la sa dayoo quoi ndax euh, nit moo gën lépp lu yàlla bind. yàlla def loolu est parce que eh, nee na moo la mën. moo la ëpp doole moo la dàq bëre te moo dàq xeex làmb ji ci dara yow li nga am mooy ci làmb ji ñëwul bàkku jaabante def li nga war def daanu jug dem ñibbi. subhanallah. ah loolu la wax nee lépp moo lépp moo koy def parce que combat bee ñëpp gis nañ moom la ko jotoon a daal bugg sax di ci ñëwaat ndax dafa dafa dafa defoon choc ay détails la woon mais comme que loolu jàll na combat moom amuloo amuloo ci benn chance. waaw nee ko mu moytu oto yi balaa moo defaat choc mu moytu oto yi bu baax a baax mu fexe indi wér gu yaram. waaw bu baax a baax yàlla la ko yàlla may jàmm may ma jàmm may ma ndam barki sëñ Tuubaa. mais lan moo tax mu ma la ëpp doole da la gis taay bi wala boog dala xaw a xepp lu mu demee noonu. sama génération bii nii amul kenn benn booy bu moo si ëpp doole xam naa li may daj xam naa sama bopp bu baax. waaw ñoom ngemb bi nee na dañ ko da ko fekk si ëtt beeg yooyu maanaam ñoom dañu fee am nday wala ñu am fi bàyyi ci làmb man aw ma fi nday aw fi bàyyi. Mhm. waa golf laa am ak waa Inte 2 duñ ma téye booy dof-dof la nii moom mënuñu ma téye. mais xeex bi nag xeex bi xeex bi ne moo la mën. xeex bi waa na dëggal boppam bu dee moom pare na pour. xeex ñeme ngaa taxaw xeex ak Saba. moom xalaatul loolu. xalaatul loolu Saba ñemewul taxaw xeex ak yow. Saba day yooru yooyu yooyu buñ ko wax. non mais combat bi combat bi paase si mu demee woon moo tax mu yor mais sa diggante yow ak moom ko waxoon. loo ko ndax dafa moom moo xaw ma lépp luy faw góor moom moo ko daax. waaw loolu ma ne ko time is money. maanaam mm-hmm. um, time is money. tuuti. waaw man du ngaa ko quoi. time is money bi lan lay tekki maanaam eh, bu nekk dañ ci wut xaalis wala. voilà aw ma jot foo. time is money nga may wax waxu foo clinique gauche jàddu droite ah, ràññee naa la dangay soob. Ardo Lo la du Modou Lo mën nga ma woowee xarañ loo ndax dama xarañ lool ci li may def may sa sama xel day neef sama doole day ñax boo yaroo ñu daal di kaf boo reewantoo dama lay ñuus Ardo Ardang la compagnon de yang bang la door la ku yan la bang la ni nga benn kàngam la booy caf ka ñam xam la boo xamul kay ma xamal la laajal ñu fi jaar ba jàll ñu xam nañ ma. mais combat bi lan nga ci war mën a wane parce que gis nañu euh, làmb jeunesse la parce que ñi ci bëri ñëpp amul kenn koo xamante ni mbër bu mag la ñëpp ay xale lañ. lan nga ci war a mën a wan parce que gis nañ combat bi mobilisation bi ñu jotee def bi nga dugg see gaa ñëpp dañ ne Ada bu ndaw la mais yow ngeen xale dugg siwul dugg xale combat bi lan nga na waaj sa diggante ak Saba parce que nag combat bi tamit ku ci daan war nga war na mën a ubbi sa buntu làmb. waaw làmb moo dul foo xam nga làmb amatul mbër bu ndaw quoi ñu ngi lim laamee ni waa ñu mag ñi dañ fee war a jóge parce que nangam sàngam. Mhm. balaa amee wuñ leen ñoom ñu ngi bay seen waar mu ngi joué seen monde ñun ñu joué suñu monde. Mm-hmm. mais ñoom li ñuy def dàq ñu ko. làmb mbër mu mag beeg bu ndaw ñoo bokk li ñuy fere. Mm-hmm. waaw dañuy génne sarax ñuy génnee sarax dañuy mobiliser ñuy mobiliser jàppale yi la ñuy ñu gën ñu jàppale ku si mel ni Lat Diop mu ngi siy dugal loxoom bu baax a baax di si woo tamit Waly bu Lat Diop Omar bu Lat Diop. Mm-hmm. waaw famille Lat Diop yëpp gis nañ ni ñu jàppale Néné taal ministre de la jeunesse gis nañ ko bu baax a baax ñëw na si jàpp na si bu baax a baax a baax. jënd na ay ticket may nañu ay car kon ñu ngi si ñu ngi koy ñu ngi koy sollicité bu baax a baax a baax gis nañ taxawaayam daal ci inte 2 waaw di ko wax mu gën a jàpp sama sama yaay euh, sama sama bàjjan sama bàjjan Binta Ndoy waaw jàpp na si bu baax a baax a baax ak Aminata tëndooy bu inte 1 xam nga ñoom Seydina ñoom dañ si jàpp bu baax a baax a baax ak Pape Ñang Pape Ñang Pape Niang moom da siy jàpp bu baax a baax a baax moom xaaru combat wala ah, combat bu combat jeexee sax daanaka moom rek la ñuy gis. Mhm. ku si mel ni Jibi Kayta ak Pape Niang xam nga ñooñu la gis après combat mais ñi yi ñu ngi siy jàpp daal ah, di ñaan yàlla may ñun ndam incha allah bis ba bu samedi incha allah. samedi yàggatul. Mhm. wàllu mobilisation yi booy fu ñu toll. waaw mooy li wax gis nga ñi ma la wax nii yëpp dañ si jàpp kon noppi nañ quoi. waaw noppi nañ gars yi. Sabaada neen day dox ak ñu Air National jëlu oto jëlu Jakarta te kiiwul day dox ak. mën na raam sax dugg wala mu am fa nekk mais l' essentiel dañuy ñëw jël lu ñu moom ñëw indil ko waa parcelle waa golf ñu sibile ñu bëggee ko combat bi nga lan yaakaar ne mooy ci xeex wala bëri. combat bi lépp xam nga booy pare da ngay pare lépp quoi waaw. mën na mën na mën na mën na mën na yàgg comme combat bee passé. man pare naa pare naa lépp ah. pare naa lépp. Hmm. pare naa lépp parce que entraîné wu ma benn jour entraîné wu ma benn fan te entraîné wu ma pour sawa kon du sawa moo may téye ñoo pare pour jëm si kaw quoi te loolu dafa jot ñu wan ko ñi ñuy suivre dafa jot ñu wan ko ñuy sonn si ñun. Hmm. Mhm. lan ngay wax ki nga xamante ni mooy Habib moom mi nga xamante ni moo moo moo taxawal combat bi. waaw Habib dañ koy jaajëfal rek dañ koy jaajëfal ndax ku. ndax ñi ko wër ñëpp ay jàmbaar lañ wax dëgg fa yàlla. xam nga metti woon na trop pour mu taxaw mu nangoo see def xaalisam dañuy ñaan yàlla li tax mu def si xaalisam yàlla bu mu ko rëccu te du ko rëccu incha allah. du ko rëccu ndax boole na ay jàmbaar waaw boole na ay der boole na ñi ko mérito quoi. Mm-hmm. waaw kon dinañ ko wan bis baak nii xaalis sa xaalis waaw def nga ko fi nga ko war a def quoi dinañ wane fulla wane jom di ñaan yàlla may ma ndam. ci barke Cheikhul Khadim ci barke mag ñu baax ñu fi nekkoon yëpp ñu fi nekk ñëpp di woo waa bu baax Baye Djili. mën nga fa jaay tàggatoo Baye Djili maa ngi koy nuyu bu baax baax. waaw tàggatoo bi rek mooy di woowaat gaa yëpp rek ñu jàpp si ni ñu doon jàppee sama grand sama papa Ngañ da Sagana waaw di ko si woowaat bu baax Khadim Naar Kodé waaw ko si mel ni Mansour Rakam ñu ngi leen di woo bu baax a baax a baax làmb ji seen làmb la waaw ñu xàccandoo dóorandoo. noonu rek la demee si wow pour ngaas bu ndaw bi di wax suba la wiiri presse bi gars yi dañuy def open presse mais est-ce que pare nga pour wiiri presse yow Ouzin bu ñu. man maa ngi ci biir. waaw wiiri presse bi dama bëgg ngeen takk <laughs> seen dàll journaliste yi wiiri presse bi dañuy dem. Mhm. dañuy dem si ñu ñoo xam ne dañuy jàppale lourdement. Mhm. ku si mel ni maire Daba Top bëgg nañ fa jaar monsieur docteur mbay mu écho da si jàpp bëgg nañ fa jaar ak ñeneen ak ñeneen ku si mel ni Pape Niang open press bi dañuy dañuy dañuy takk baaful yi teg chaise yi gars yi bàkku mais bii paa dafa mel da ngay jël oto wala da def pied tànk nga da ngay bii paa tànk la def indi tàntangoo yi ku si mel ni Sam sama rakk hmm. ku si mel ni euh, laay laay laay dafe hmm. waa di sama grand ñoom ñoo koy ñoo koy tëgg hmm. waaw dinañ gis aada dinañ gis culture ku ko tardé di nga rëccu loo fi doon tegul loo fi loo fi tegul sa tànk incha allah. parce que c' est la fête quoi mooy loolu incha allah 3 heures dina fekk gars yi commencé yëngal koñ bi. Mm-hmm. waaw 4 heures dañuy yëkkati dem ku ñu fi fekkul ah. mu dab leen yoon mu dab ñu si yoon bi ndax parcelle dafa rëy te dinañ wër parcelle dinañ wër golf incha allah. séance d'entraînement la rek waaw yaa ma gën a xam ndax tàng-tàngoo ku koy fecc doo toog doo taxaw noonu la demee <laughs> da ngay wàcc suuf di yegg si kaw mm-hmm. <laughs> noonu la demee di béggee waa Mbour bu baax a baax a baax di leen woowaat si làmb ji mm-hmm. di kontaan si teew bi nga teew fii inte de mooy mm-hmm. loolu yow suñu grand nga mënuñu la bañal dara dëgg la mais ku xool ku nu may ku déglu nu xam ne sonn naa lool mais làmb ji la léeg-léeg te léegi mu jeex incha allah waaw noonu la demee di ñaanal mbaru parcelle yi am combat yëpp yal yàlla suturaal defal leen ndam ku loxum ku lim jum mais di ñaanal sama doomu nday Kayta mhm. Kra yàlla may ko ndam lu sedd te gaaw barki Seexul Xadim yàlla mën na ko am na ko da la dugg sam sam yàlla na ko def waaw loolu du Thiès miin nañ foofu waaw gis ngeen mbokk yi nii la demee woon tey Ardo lañ seet si woon bëgg a waxtaan ak moom ci combat bi nga xamante ni ci la jëm dox ci digganteem ak Saba xam naa buñ fi jógee dañuy tàllal dem ba foofu seeti Saba waxtaan ak moom ci combat bi waxtaan ak moom ci li nga xamante ni li des si préparation bi daal dernière séance yi gis ngeen mbokk yi suba nag euh, nan la tudd sax. wiiri presse la wiiri presse suba la gars yi dañuy open presse mais moom leen wiiri presse la. protéger naa ko nag ku ko pour gars yi pirate yi non loolu moom mënu cee ñàkk moom. <laughs> protéger naa ko. suba laa jëm. suba looloo fi am open presse amul wiiri presse moo am. dugg porte à porte génnee gars yi waxtaan ak ñoom nee na àdduna ne suba loolooy def ko ñu ci woo presse bi yëpp képp koo xam te am nga jot rek nga ñëw ci wuyu presse bi di leen jox dig daje beneen yoon yeneen ba ci wasaare làmb jaa ngeen jëf